rafetlu bu baax seen ànd ak la première chaîne de télévision privée bu Sénégal waxtu xibaar yi jot suñu ay makkaan neskis ñu dikk ak ci li ci gën a fës. bokk na ci fukk ak juróom migrants yi bëggoon dugg ca Espagne ñu di leen di fa ñoo daal di faatu ca fukk ak juróom-ñett yooyu sax ñetti sénégalais ñoo ci daal di bokk bu sukkandikoo ci Horizon sans frontières ñuy xayma ci lu ëpp ñaari junni ci doomu aadama yi ñu jàpp ca buntu Espagne di leen buntu xataal. daañu yëkkati ci biir xibaar yi kàddu yi nga xam ne kii di Mélenchon daal dina koy yëkkati jëm ci politiku réew mi mu di lu groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar daal di ñaaw lu tax ba bataaxal bi ñu daal di koy fësal ñoom ñooñee ñuy xam ne ni kàddu yi waa NUPS yëkkati dara taxu ko jóg lu dul yee fitna ci réew mi beneen i xibaar yi dinañ ko yëkkati mu di tàggat yaram ci biir euh, xibaar yi mu di final champion Ligue 1 sénégalaise ñu nax ko amal ñi ki tey ca stade bu Thiès diggante Casa Sport ak Étoile Lusitana mu nekk match bu am solo ci ñaari équipe yëpp waaye ñi di waa Casa Sport ñooy wutali seen ñaareelu ndam euh, consécutif lii moo ci gënoon fës yaatal yi léegi léegi lay doon. mu ngook di rafetlu ànd gi ngeen ànd ak la première chaine de télévision privée bu Sénégal ñu ko junjee ca bopp ba fukk ak juróom-ñetti euh, migrants ñoo daal di ñàkk seen bakkan ca Ceuta lii di Horizon sans frontière euh, di ko ñaawlu bu baax a baax euh, tey woo lii di gouvernement espagnol ak cour européenne jëm ci ak ak yelleefu doomu aadama ngir ñu daal di wax ci li ni mel fukk ak juróom migrants yooyu yépp ay nit yu ñuul lañu te bëggoon dugg ca biir Espagne bu xaymaa ñi fa bëggoon dugg nag ñu ngi toll ci Euh, ñaari téeméer ci ay doomu aadama ci bilan bi nga xam ne euh, ñii di autorité euh, marocaine yi daal di nañ koy fësal leeral yi ak Abdoulaye Mal. ñu daal di bëri lool ñii nag daal di rek jóge Afrique jubale fi nga xam ne mooy Espagne. ci aljuma bi ci suñuy xibaar ñu ñuy xamal ne rek ñii fi nga xam ne mooy Espagne fu ñuy wax melila féete fi nga xam ne mooy Maroc la ñu doon rek jéema a utal ngir dugg fi nga xam ne mooy Espagne organisation internationale de défense des migrants Horizon sans frontières dal di ñaawlu li nga xam ne nag moom la migrants yi daal di dundu fi nga xam ne mooy Ceuta Melilla Boubacar Seye ginnaaw bu ñu ko déggee téléphone daal di nag dëggal yile vidéo moom nag muy ñaan rek chef gouvernement bu Espagne di Pedro Sanchez ak cour européenne des droits de l'homme ngir ñu ubbi l'enquête ba tey moom nga xam ne mooy Horizon sans frontières nag daal di rek ñaawlu li nga xam ne nag moom la migrants yi daal di dund ci loolee muy xamle nag ci xibaar yi nga xam ne jot na ko am na rek ñett sénégalais yu ci daal di bokk mu doon nag vidéo yoo xam ne mu ngi rek wër jamono bi ci internet bi ñuy xamle nag yi les lu metti la ñu dund fi nga xam ne mooy frontière diggante Maroc ak Espagne ñu wax leneen ci xibaar yi euh, xam ngeen ne politique bi jamono ji nag daal di ne yëngu bu baax a baax euh, tax na nag ngir defaraat ko lu war la moo loole nag nekk mbébétu kii di xalif général des Tidiane euh, kàddu yooyee nag ki ko daal jottali di Maxtar Kebe ca ba ñuy amal cérémonie pose première pierre ci hôpital bi nga xamante ni ñu ngi ñu ngi ko fay daal di taxawal ñu teew lu kàddoom ci micro Gustave Emmanuel Faye. Sénégal gépp ak couche yi ci nekk yépp ñu ànd jéem a dal moo xam ñi nekk ci pouvoir la moo xam ñi nekk ci opposition moo xam ñi nga xam ne ñoo jiite walla ñi nga xam ne dañ leen a jiite ñoom ñëpp mi ngi leen di ñaan moom sëriñ bi ñu jéem a dalalaat seen sago te jëfandikoo seen xel ànd ak conscience humaine bu mat sëkk te jéem a ànd toog waxtaan dialogue boo xam ne suñu ko defee li ñu bëgg ci réew mi danañ ko am te ci pëccëxoo du am jaamaarloo du am rayante du am mu ngi ñaan itam ku ci nekk nga jéem a jël principe bu tolérance ak wormaal sa morom ci kàddu ak ci wax mu ngi ñaan itam ñépp ànd jéem a doxal li nga xam ne bu amee te moo di justice sociale réew mi dana jëm kanam te ñu war a ànd ñëpp danañ ànd ndax nee na benn noon la ñu am ñun ñëpp mu di ñàkk fexe ba ñi amul am bi ci tegu mooy feebar fexe ba ku feebar mën a am foo fajoo bu ñetteel bi mooy fexe ba réer jóge fi fexe ba ndaw ñi góor ak jigéen mag ñëpp bokk jàng ndax ignorance ennemi la boo xam ne mënul ànd ak développement mënul ànd ak émergence nee na noon yi mooy noon yi nga xam ne ñun ñëpp ñoo war a jógandoo pour combattre ko bu baax a baax suñ ko defee li ñu bëgg ci jàmm ak stabilité waaw réew mu naat ñëpp dund du dugg tey bu neexee yàlla danañu ko am nee na kon mi ngi ñaan kilifa gi nga xam ne moo jiiti réew mi ak mboolem ñi nga xam ne ñoo topp ci ginnaawam opposition bi ak ñëpp ñu ànd dal joxante loxo ku ci nekk wóolu sa morom. ñu bokk liggéey suñ ko defee liñ bëgg ci réew mi ci naataange dana am loolu la waxoon nañ ko tënk ñu ngi baalu xaq wasalaamu nañu ko junjee woon ca bopp ba sax kàddu yi nga xam ne kii di Mélenchon daal dina koy yëkkati ak Olivier Faure ak ñamu nekkal yëkkati merlo bu baax ñii di député yu nekkee ca donkaasi gi tax ba groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar bi daal di fësal bi lépp bataaxal ngir ñaawlu euh, kàddu yi nga xamante ne nii ñii di waa daal dinañ koy yëkkati ci sunu politique te loolooy di yokk euh, ci xar mi karaw ndax leer na ñëpp ni euh, jamono ji politique bi dafa daal jaxasoo ba ay bakkan ci rot lii di groupe parlementaire bu Benno Bokk Yaakaar sax di xam ne ni amul benn leçon boo xam ni war nañ ko daal di jot ci ñi nga xam ne ñu wax benn yoon ci sunu politiku réew. nuñ ko waxee woon ba tey dañuy woyal ci politique bi jamono ji nag euh, gis nañ ne langum politique bi daal dina yëngu lool ngir dëkk bi amaat jàmm ak dal ci élection législative yi yu ñu jëm lu war la bu ñu sukkandikoo euh, ci analyste politique bi di Abdoulaye Mbow moom moomee sax nag muy xamle ni acteur yëpp jamono ji nag war nañoo toog ngir xool ana yan jafe-jafe la ñu war a daal di dindi ci euh, langum politique bi nga xam ne jamono ji nag mi ngi daal di bëgg a jéggi loxo dañuy teewlu leeral yi ak May Jigéen Diouf coow li ànd ak wàccaay élection législative yu 31 juillet 2022 yi bettul kenn moo tax sax bi nga xam ni la waa coalition Benno Bokk Yaakaar wootee jaarale ko ci seen conférence de presse ab front jëm ci wàllu jàmm ak i république doon na loo xamante ni taxaw nañ ci seetlu mu waral sax am na analyste politique bii di Abdoulaye Mbow di wax ni loolee attitude bu responsable la rawatina bu jógee ci ñi nga xam ne ñoo yor nguur gile waaw defe naa ni euh, woote jàmm moom moom la ñu puti xaar surtout nag bu jógee si coalition bi nga xam mooy coalition bi jiite réew mi di coalition benn Bokk Yaakaar waaye damay wax ni woote woote loo woote woote te boole si ñu boole woo si ñu ñu si war a bokk du jariñ dara boole ñu si war a bokk nag mooy boole si l'opposition bi surtout opposition bi nga xam ne moo gën a am doole Sénégal mu di yeewi ak leneen li des si opposition bi waaye tam boole si société civile ngir mën a waxtaan pour trouver ay consensus consensus su ma nee nag mooy waxtaan ngir xool Euh, situation politique bu ñu nekk ak euh, euh, fii ñu jëm ci élection législative yi lan la ñu war a waxtaanee lan lañu ñu war a trouver comme solution. dëgg la lu mu nekk la waaye force vive yooyu yëpp bu ñu wuyu ci daje ci table waxtaan jaarale ko ci consensus day doon loo xam ni moom rekk moo ci mun a génnee ñëpp. consensus moo di solution si lépp euh, lépp looy ñuy def si kaw suuf defe naa ni waxtaanee ko ba trouver consensus euh, moom la ñëpp di xaar euh, plateforme revendicative ak protocole bi nga xam ne dañ koy si consensus moo ko moo ko tënk lépp loo gis rek bu ko consensus tënkee jàmm moo siy juddu parce que itam consensus mooy déggoo gu am doole déggoo gu am doole ganoo nag amul leneen lu lu muy jur lu dul li nga xam moo di jàmm parce que su boobaa nag ku nekk bu defee li tax ngeen déggoo defe naa ni dara du am. loo xam ne ay la jege waaye jàmm rek lañ si lañ siy séentu. àdduna lépp ci waxtaan lay jeexee ndax guerre mondiale yi sax ci table lañ ko réglé moo waral li ñu mel buñ ko defee dina amal solo ñëpp ndax répp Sénégal jàmm la xam ci jàmm la mës te ci jàmm lay dox ñoŋal ko nag doon na loo xam ni war na képp koo xam ni rek da wuyoo doomu Sénégal. ma jigéen ji Diouf ñu wax ci beneen ponk ci xibaar yi moo di lu jëm ci kaaraange tali yi ca diwaanu Ndar Géej nag ab comité régional de développement euh, daal nañ ko fay amal ngir mën a sensibiliser euh, jéeye yi nga xamante ni saa su nekk mu ngi daal di am ci tali bi euh, ci boobu ndaje ci teewaayu nga ki nga xamante ni moo di acteur yi ak yu nekkee ca boobu secteur autorité administrative yi ak directeur général bu agence nationale ñeel sécurité routière ñoom ñëpp teewoon nañ fa ci occasion bi ngir wax ne nag lu war la ngir ñu daal di taxaw bu baax a baax euh, lii di collectivité territoriale yi ci programme li nga xamante ni jëm na lépp euh, ci wàllum kaaraange tali bi leer dañuy teew teewlu euh, kii di Adama gay ci micro Moussa Diagne ak Abdou Boy donc gannaaw bu ji tax agence tax taxawee si ñetti conseil des ministres yi nga xam dafa toppante naan nañu fexe ba agence boobu commencé liggéeyam maanaam nañu fexe mu opérationnel te nañu lancé campagne nationale secteur routier lu jëm ci wàllum en tout cas kaaraange yoon bi looloo indi woon mois d' avril bi passé mois de mai bi passé le 23 mai ñu lancé officiellement activité agence bi waaye lancé waale campagne nationale secteur routier su ko defee ñun ñu déplacé wu comme ni ñu ko defee tey mobiliser wu ñëw waxtaan ak acteurs yi waxtaan ak donc donc donc service yi ci wàllum euh, kaaraange yoon en général mu jëm nag ci wàllum sensibilisation jëm ci wàllum éducation waaye jëm ci wàllu recueillir bëgg-bëggu askan wi ci sur le plan local si seen jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ci wàllum kaaraange yoon ñoom ñu wax ko yan la yan tali ñoo am jafe-jafe yan mooy jafe-jafe yi ci wàllum formation lan mooy jafe-jafe ci wàllum donc sensibilisation yan mooy yan mooy bu ñu ba ñu am jafe-jafe yëpp ba pare ñoom ñu ne ni ah jafe-jafe yi am nañ ko waaye yaakaar nañu bu ñu doxalee nii dañ ko saafaral ñoom ñu joxe ay proposition de solution mu jóge à la base buñ ca noppee dañuy daal di wax ca dawalkat yi nga xam ne ñoo nekkee ca commune bu Mbacké ñoom ñooñee nag jamono ji lu ñuy sàkk moo di ñu xoolaat anam yi nga xamante ne nii moom la ñuy daal di liggéeyee gannaaw ba ñu janoore ak taskatu xibaar yi ñoom dawalkat yooyee sax nag daal di nañuy fësal seen jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel saa su nekk ba tax nag ñuy woo kii di nguur gi mu daal di am ak ñoom audience ngir mën a saafara seen i liggéey seeni euh, i jafe-jafe bu ko muyul it dinañ daal di amal ab grève ca diwaanu Touba ñu fa teewal taxawal di Pape Sayar Mbaye ak Bekay Ndiaye. chauffeur yi nekk ci bokk moom yi di doon commune yi nekk ci biir réewum Sénégal daje ci Mbàkke di fesal seen ñu gi xol seen anama liggéey lan bëgg mu gën a jàppandi. maire yi ñu nekkal considération ni ñu war a en tant que chauffeur communaux dafa des tey contrat yi am na benn barème boo xam tey par exemple inspection du travail daf ko génne mais loolu maire yi dañ koy jalkati dañuy ñëw rek defaral la benn contrat boo xamante ni euh, nu leen neex lañ cay def. dem yóbbu inspection ñu ñu légaliser ko loolu yi dañ ciy interpellé eh, inspection du travail beneen bi ci des mooy augmentation salaire salaire bi dafa war a yokk mais koo xam ne def nga ci euh, commune nga xam ne fi la war a taxaw dañuy liggéey guddi di liggéey bëccëg ñooy ambulance ñooy corbillard ñooy def lépp te suñu salaire taxaw fi ñu war a taxaw loolu lañ bëgg président de la république xam ne loolu tëgootul ci yoon beneen bi ci des mooy fonction publique locale bi nga xamante ni depuis 2011 ci lañ ñu audité woon am na ci ay agent yoo xam ne audité chauffeur yoo xam ne audité leen bañ jot seen fiis mais depuis boobu ba léegi ministre boo waxee mu ni fonction publique locale mi ngi dox mais naka lay doxee kan lañ recruter gisuñu ko kon ministre bu bu nee fonction publique locale mi ngi dox ñun chauffeur yi gisuñu suñu bopp parce que kenn recruter wuñu ñu ngi toog nag di xaar bëgg nañ ñu ñuy verser IPRES ak caisse de sécurité sociale parce que loolu texte yi ñoo ñoo ko wax mais maire yu ci dañ koy bañ wax ji daal mu gudd mooy condi suñ condition de travail yi moom lañ bëgg ñu ñu ñu xoolaat ko. ñoom chauffeur communaux yi nekk ci biir réewum Sénégal joxantoo daje ci Mbàkke ne seen jàmbat yi njiitu réew mi lañ ci séentu ngir mu taxawu leen ci. li nga xamante ni moom moo am mooy président nañu woo nañu woo recevoir ñu. ñun chauffeurs communaux yi ñu toog wax ko li nga xam ne moo xew ci réew mi su ca jógee incha allah njëriñ dong la cay jëlee. buñ leen tàng xamloo ñoom chauffeurs communaux yi ne danañ wut yeneen i pexe. grève comme ni ko ñëpp di def wala ñu wàcc ci mbedd mi manifester mën nañ ko on est 557 communes la 557 communes commune boo ci dem daanaka ñaar ñett ba juróomi chauffeur nga fa am nañ njaboot am nañ ñu topp si ginnaaw am nañ ginnaaw te suñu grévé mën naa feeñ ci ci ci liggéey bi état bi mën na cee gis seen bopp bëgg nañ daal avant élection législative yi di ñëw président de la république recevoir ñu suñ ko deful ñu wàcc ci mbedd mi comme ni ko ñëpp di defee su législative yi ñëwee benn maire du campagne ñoom chauffeur communaux yi nekk ci biir réewum Sénégal ne mu gudd gàtt lañu bëgg mooy seenu nekkin ñu gën leen ci taxawu ngir wàññi jafe-jafe yu ñu ngi koy jànkoonteel ci fànn yu bari gannaaw tuuma yi nga xam ne daal nañ koy teg ci ndoddam moom euh, Samuel Ndione lii di union des ferrailleurs industriels brocanteurs ak artisans yu Sénégal daal dinañuy génn ngir ñaaw lu kàddu yi nga xamante ne ni euh, kii di Serigne Momar Soxna daal dina koy yëkkati euh, ci kii di Samuel Ndione ñoom ñooñee sax nag ñuy fësal ci boobuleb ndaje seen i jafe-jafe yi nga xamante ni ñu ngi koy daal di jànkoonteel ci boobuleb secteur ki waxtaan ak ñoom moo di Tari Samb ak Baye di Mboup gannaaw génn bi nga xamante ni kii di Samuel Ndione nag def na ko gannaaw tuuma yi nga xamante ni kii di Serigne Momar Soxna teg na ko ci kawam ñi ne nag di membre union des ferrailleurs industriels brocanteurs ak i artisans bu Sénégal daal di nag dugg ci biir coow. si moo du Soxna li mu wax si propos de Samuel loolu nekkul parce que ministère du commerce ñoom dañuy encadrer rek signature au niveau du compte ferrailleurs yi ñoo ko yor. ñun ñooy def les déclarations donc li mu wax amul yanuwul maanaa amul fenn fu mu tegu aujourd'hui je pense que les informations comme ni ko Samuel waxee démb le compte bancaire yaa a que ñoom ñoo si yor euh, signature donc Modou Soxna peut-être am na leneen lu ko animé lu dul loolu. ci loolee nag. kii di porte parole bu bile union nag gannaaw bu mu nakarloo yéexaayu collecte ferraille bi muy woo nag acteurs yi ñu daal day mbooloo ngir daal day raxas nag bile secteur. léegi ñi ngi woo président de la république Macky Sall di ko xamal ne ko bëggoon nañ tamit mu dimbali ñu ci jafe-jafe yi ñu am nii ñun ferrailleurs yi ba fexe ñun nan la ñuy wutale pexe bañ mën a tijjiwaat exportation bi ngir mën a tamit yeggali suñu liggéey ndaxte tamit. yun euh, suñu léegi nag li ñu bëggoon président de la république tamit dimbali nu ci muy fexe ba dox suñu diggante ak industrie yi jamono jii ñu toll nii di wax ak yéen soo demee ci industrie yi suñu camions yi yëpp ña nga fa taxaw mënuñu wàcce matériel bi te loolu lépp système bi ñoom ñoo ko tey parce que ñoo paanal seeni machine ngir bëgguñu gàllankoor ci suñu biir liggéey léegi nag ñoo ngi woo président de la république bëgguñu coow bëgguñu it lenn loo xamante ni moo ñuy tardel suñu àdduna muy àddu nag mu daal day itam indi ay leeral ci yokku njëgum ferraille bi. xam nga bi soo gisee mu seer lenn dong moo ko waral muy matière primaire bi koy defar moo seer ñun nag feer dafa seer ba pare ñun ñu bëgg wàcc suñu matière primaire bi nga xamante ne nii moom mooy defar fer. loolu mooy li nga xamante ne nii moom mooy li ñu gën a jaaxal ñoom dañoo yéegal prix ba pare bëgg wàcce prix ferraille te fer ferraille dong lañ koy toggee parce que ferraille mooy li nga xamante ne nii moom mooy defar fer te gis nañ ne Sénégal mënuñu tëj. maanaam importation fer fer day ñëw Sénégal te li ñu jaaxal mooy lan moo tax ñuy tëj exportation ferraille. gannaaw nag bu ñu ñaawloo nag tuuma yi nga xamante ni nag teg nañ ko ci responsable direction bu commerce yi di union des ferrailleurs industriels broncateurs ak artisans fii ci Sénégal moo ngi ñaawlu itam ñàkk convention bu dox seen diggante ak industriels yi ci loolee ñuy lancer ab appel ngir ñu formaliser bi le secteur. ca Ziguinchor lii di euh, euh, lii di projet Agropole Sud daal nañ koy tàmbaliwaat jëm ci production euh, mango yi waaye nag mën nañoo jàpp ne boobu lépp filière mu ngi jànkonteel ay jafe-jafe bu weesoo li nga xamante ni moo daal di jëm ci wàllum transformation yi jafe-jafe yooyu nag moo di weñ yi nga xamante ne ni sonal na leen lool ba tax nag ñuy wax ne ci lu toll cinquante pour cent ci ay production yi ñuy amal dañu koy ñàkk saa su nekk ci yooyu lépp région yu ci mel ni Kolda Sédhiou ak Ziguinchor mu di lu sonal euh, producteurs yooyu sax nag ba tax ñu daal di dem euh, ca diwaanu Kolda ngir amal fa yooyu nag daal di leen fay jóge euh, Bokar Kandé ci ay leeral. docteur Badiane naka la ñuy defaree ab piège loolu yëpp nag ngir xeex la nga xam ne nag moom lañuy woowee mouche blanche di ay weñ yuy yàq màng yi. ngir ñu mën leen rëy soxlu nañu melation muy li ma yox nii ñu boole ko nag ak ndox ndox bi mënta doon nag bu robinet wala bu teen su pare nag ñu jël beneen produit bi. melation ak ñaari tokk-tokk biotrap lañu daal di boole jaxase ko ak juróomi litre ndox à partir de loolu kon mun na ñoom solution bi mën a xëy weñ yooyu lee. muy ab technique bu intéressé lool ñi nga xam ne ñooy producteur mangue yi juste après lañ ko daal di essayer pièce bi ñu daal di ko wekk ci lu war a toll ci ñaari mètre ak suuf si résultat bi daal di feeñ ci saas yi ñu gis ay weñ yu coincé ci biir butel bi mu doon ay weñ yu ñuy dippee mouche blanche yooyu dong amul benn bi ci war a mucc. À partir de ce Euh, la possibilité. dinañu samp ay butéel ci périmètre bi yëpp ay butéel yooyu attiré weñ yooyu ci 30 mètres bu ne nag dinañ fa samp ab butéel te it sóoraale nañu benn système de contrôle ngir mën a xayma ñaata weñ la ñu jàpp. Euh, mouche capturée pour qu'on puisse évaluer. moment projet bi projet pilote la li ñuy xaar ci yéen nag mooy ngeen wax ñu nag li ngeen ci am comme résultat su baaxee nag. ñu mën ko lawal ci Casamance yëpp. l'année prochaine s'il plaît à Dieu inchallah nous allons l'étendre à toute la Casamance naturelle. mouche blanche yi yàgg sonal producteur mangue yi Moussa Sabali daal di ñu woon yàq-yàq yi ci biir verger am. waaye tout par la mouche donc. Euh, ay mangue yu bëri. yu daanu moom mi perte na ci lu bëri waaye du moom dong lii nii day faral di dal daanaka producteur màng yu nekk fii ci Casamance yëpp. dañuy topp mangue yi ba fi ñu koy jaaye donc même yow baana baana même bu ci euh, rëccale dem yóbbu jaay foofu baana baana tamit da ci perte donc yow da ngay perte fii sa tool bi baana baana bi ñëw di wut lu mu am moom tamit mu dem weñ bi topp ko te moom xamul weñ xamul weñ mais weñ bi yàqul mu perte. c'est c'est extraordinaire. doy na waar trop waaye li ñu gis mooy xeetu mangu yu mel ni kent ak ket la win yii di gën a soxla ndax xam nañu nag ay variété la yuy yeex a ñor bu nawet daal jotee la ñuy tàmbalee di ñor. ISRA def na ci jàngat pacte yi ci aju dafa bëri lool fii ci Casamance yaakaar naa ne nag ak pexe bi ñu taxawal mën nañu saafaxa yooyu la jafe-jafe. fii ci Casamance projet Agropole Sud bi ñu taxawal tax na tey jii ba ñuy xoolee beneen i bët filière màng maanaam war nañ ko gën a jox gëdd innové gis ne li ñu war a njëkk def mooy wàññi parti yi mu ci liggéeya indi ci ak sokaas. Ah, ak darkase bi dafa nekk ñaari filières yoo xam ne bari na koom-koom gouvernement Sénégal daf si taxawu moo waral ñu taxawal agropole sud pour que ñu jéem a seet nu ñu mën a saytu loolu production bi mais mën a transformer pour que xale yi mën a si am xëy ñun si wàllu woowu lañu taxawee waaye perte yi bari na si wàllu muus bi rek boo xaymaa ci tool mu war a génnee téeméeri kilo mango ah genn wàll gi mën naa yàqu day nëb wala mu daanu ndax muus yi rek. xeex bi ñu sumb ci mouche blanche bi ñu gis ne mi ngi dox pexe bi am na déjà succès bu mag ca Guinée-Bissau ci boobu la réew 90 pour cent ci production màng daldi dinañ ko sauver mu mel ni fii ci Casamance am nañ ci yaakaar bu mag waaye ngir mbir mi dox. acteurs yi ñu ngi woo seeni ay ñooñu maanaam bépp producteur de mangue mu ñëw adhéré ca projet bi la Ah, buñ ca noppee dañuy daal di dellu si ci ndakaaru ndax lii di port autonome euh, bu ndakaaru te ki ko jiite di Aboubacar Aboubacar Sadikh Bey euh, daal di nay amal ab randonnée pédestre verte jëm ci bés bu ñu jagle lépp lu jëm euh, ci alam gi thème buñ ci doon waxtaanee mu nekk suuf gi ñu am naka la ñuy daal di def ba sàmm ko ngir génération bi nga xamante ni dina daal di ñëw mu occasion bu directeur bi ak it ay collaborateur am yëkkati ay kàddu ngir wax ne ngir ñu daal di bàyyi xel yi nga xamante ni moom la ñuy sàmmonteeg alam bi leeral yi Cheikh Kébé doon ak Ibrahima Diané. Je <coughs> bàkkum réew mi toftal ci benn une minute de silence jégleel ko ñi nga xamante ñoo fi wàññeekoo di loon liggéeyee fii ci port autonome bu ndakaaru laata ñuy door randonnée pédestre bi nga xamante ni direction générale bu port autonome daal dina koy amal bis tey bii mu yamook ñuy màggal bis bi ñu jagleel lépp lu jëm ci alam gi thème bi nekkoon benn suuf rek dañu ko war a sàmm jagleel ko ñi nga xamante ni ñoo war a ñëw ëllëg muy génération future. tey dañu Euh, randonnée euh, pédestre euh, tàggat yaram yi mais aussi defar suñu cadre de bi dafa am bànqaasu Nations Unies bu ñuy woowee programme de Nations Unies pour l'environnement bu wootee benn journée mondiale de l'environnement. njiital fédération sénégalaise bu randonnée ñëwoon fekk ci mbir mi daal dina yëkkati kàddu cant ki nga xamante ni. mooy njiitu port autonome bu Dakar. ci taxawaay bi mu amee. merci monsieur Bey. nag tey ñoo la daal di wuyu ci bés bi nga xam ne moom mu jagleel wàllu malam ngi ni rek lépp lu nga xamante ne rek dañ koy suxat ci wàllum valeur wàllum gis-gis ñu daal ci ànd. ñii nga xamante nii ñooy doxkat yi ñoom it am nañu mbégte ci bis bi. waaw DG moom lu ma def moom lu rafet la ko daf ñu woo woon pour ñëw jàppale ko si liggéeyam quoi léegi daf ñu waxoon leen ñëw euh, jëmbat ay garab. Euh, mbalit ñu nekk kale si poids bi yëpp ñu jéem ko kale xam euh, mbub dox tuuti def tuuti sport sensibiliser gars yi si kale ñuy ñuy toppatoo si si environnement quoi. ci njeexital bi njiit bu por autonome bu ndakaaru daal dinay jëmbët ay garab ngir taaru port autonome bu ndakaar gën a ji loolu lu koy prévenir nag mooy ñu changer jikko yi ci ni ñuy suñu diggante ak euh, la nature l'environnement moo tax ngeen gis tey ñu def benn programme de reboisement euh, pour rek euh, améliore cadre de vie bi mais aussi participer comme comme dañ fi gane si rek ci àdduna te dafa am ñu ñu fi wutu si muy suñuy doom muy suñuy rak ak suñuy set yi ñëw donc ñu war ñu war la nag bàyyi euh, loo xam ne ñoom aussi bu ñëwee euh, dinañ ci mën a euh, jëfandikoo ci te duñ ci am tolof tolof tof daal di nay xamle ni dañu taxawal benn brigade de sûreté boo xamante ni liggéey bi dinañ ko door ci mois de sulet bi ñu dëgmal ngir wàññi yëngu-yëngu yi am ci diwaanu port fexe tamit ba bërëb bi mu mucc ayib ñu wax tàggat yaram ci biir euh, xibaar yi mu di lu jëm ci champion Ligue 1 sénégalaise daañu ko amal niki tey mu di match final diggante Casa Sport ak Étoile Lusitana niki tey match bi ñu waroon amal sax nag ca stade Abdoulaye Wade daal dinañ koy dàq ca stade la jox bu Thiès ndaw Ansu Jeeju yi nag di wutali seen ñaareelu trophée loolu di tax ngir ñu mën a am ñaari ndam maanaam coupe ak championnat dinañ ci dikkaat ci nu mu gën a yaatoo ci sunu yeneen jotaayu xibaar ngeen ànd ceeg Fatima Silla ak Adama Kandé foofee sax lañuy ñuy jaar yëkkati jotaayu xibaar yi di jaajëfal képp ku ci jàppoon ba mu yemba rédaction bu 2STV dina dikkaat 19h ak 20 jox leen yeneen i xibaar laata loolu woy leen di seetaan sunu ay programme jaa ngeen jëf.